bi ngeen duggee ci biir géew bi Balla Gaye day li muy doon def pour perturber Modou Lo la wala pour jéem a def ay gàllaajam ba mat parce que à chaque fois dama lay seetlu dangay ngay ñëw pour wër ko te moom day ñëw pour wër la te doo ko lijjanti yow dangay def say gàllaaj mais moom pour boo koy wër mu bañ lu tax nga bëgg koo wër waaw xam nga bii passé dañoo defoon biteel yi mu neex hmm. amateur yi kontaan <laughs> bi passé moom muy bañ <laughs> loolu loolu mooy ah waaw loolu rek nga ci jublu woon. waaw loolu rek laa ci jublu woon. ambiance ambiance pour neexal làmb ji. Ah. donc waaw. ah. mais pour perturber waale ko aussi sonal ko pour moom mu bañ a def ay gàllaajam. non moom buy def gàllaajam dama koy bàyyi mu def gàllaajam sans problème parce que mu ngi doon def li mu bëgg def yëpp. Mhm. mais man moom dama koy bëgg a perturber mbalak ko daraay ko. Mhm. parce que loolu la quoi. Mhm.